قارن في كلامك القرآن التوريت بسم الله الرحمن الرحيم موسى موسى أنا إله أبيك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب كالم في كلامك القرآن التوريت من الله مالك السماوات والأرض كالم في كلامك القرآن التوريت وقال الله لتكن أنوار كالم في كلامك القرآن الإنجيل باسم الرب ملك إسرائيل أنت ملك إسرائيل من الله الواهب آمن بالنور أنت الإله الحقيقي النور Jibril ya mace ya ji, Jibril ya mace ya ji, Jibril ya mace ya ji, ya lagos kuma. متكلم كالم متكلم كالم متكلم كالم بكونك كالم القرآن بكونك لا إله إلا الله والمراد لا إله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 وإليك المصير وإليك المصير كالم لا إله إلا الله يوم ألف مري بكان في يا ربي يعني كذا تيري بني الصبور إني أقل السماوات والأرض باسم واحد من أسمائه يعني كذا تيري بلي القرآن بلي القرآن تستبور أنا الملك الديان موسى أسمع كلامي يعني كذا تيري بلي القرآن تستبور فأخذتم كتابي فجعلتموه تحت أقدامكم naa la ci sa téere ba di sab baax gaag sa tabe ga إله إلا الله yaram yi yaa yàgg ci nguur te kenn faru la yaa di kuy dëkk ci nguur di buur di buuroo ca yow الغيب لا إله إلا الله Kalimuna baje yow rek yaani yow min def ni bakkan yi yaram yi yaram yi yow rek ak ca booni yaa dina fexu dara jaadidul ardi يلحر روح من به على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي انه القران الكريم يا لي يا لي كتي دراجة يا دراجة كوي دفر سو كو يا لي rafiu darajaatul arsi ne nga yaa defar saar su gaaf tëkkee yaag sa defar ya ci biir alquran yaa ngi ci biir alquran ba ngay sebu kenn wa sebu ba juum yaa yàgg a seboon yowa te kenn mënu mu dëggu yaa yàgg a seboon mana te kenn mënu ko mu dëggu

die. أشهد لا إله إلا الله آبائكم الأولين فرتك يوم تادي السماء بدخان مبين يا سبوا يوم يحتوي يا سبوا يوم يلا من دفن البكان دي رميني ربكم رب آبائكم الأولين والسماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا ربنا أصرف عن العذاب إنا مؤمنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون متكلم متكلم كافر doo def kenn yaakaar la nga tas yaakaar jàkkaalimu laa ilaaha illallaah defal kenn yor ko ba yàgg ne ko tay naa ci yor gi ma la yor way kaalimu laa ilaaha illallaah آمنوا بالله والذين آمنوا حسنوا حبا لنا كفنا علي يبنى ما كلنا فعلي يمضم وآمنتم بالمصطفى موسى إن الذين آمنوا ak inna alladina qaalu rabbuna allahu yéen julit kay sunu borom sopp na leen nee na lépp koo xam ne ki nangu nga ne sunu borom moo nu bind ngeen nangu ni allahu mooy sunu borom su ma taxaamoo na ma leen taxaw loo ngeen taxaw ko nee na falaa xawfun alayhim wala hum yaxzanoona ñana yooya jaam ñi di ay jilit góor ak jigéen nee na duñu jàpp nee duñu tibbi bool ak yawmal qiyaama nee amul fu ñetti julit di àndandoog jaam bu mu man di doon te du moo leen ñeenteel nee na amul juróom yi du moo leen benneel ma nga sami allahu nee du caagin lu ko gën a néew mbaa lu bare lu may mi ngi ànd ak na maa leen seet ci coobare bindi leen maa leen jox malaayika diir ba maa leen booleeg baay yëpp maa leen booleeg ci biir ndey yëpp maa leen màggal ngeen doon ay mag ngeen gisul laa jaar ba màggal leen xakalal maaliku am daxaa wa xabibu saahibin wa saahibaat boole ko saaba ya te xalifa ci badar fekke nañu ko la ilaha illallah waat fekke nañu ko la ilaha illallah farfaragul kudra fekke nañu ko la ilaha illallah baynu kaa fekke nañu ko la ilaha illallah tawi fekke nañu ko la ilaha illallah wala muhammad ibnu maslamata daano torop dañu ko julee ñu nga nekk ci seen kaw taaba ya fara ñu ko julee torop oot ba ñoo ko feex kañ lay am sa ta keroog ba yéen jàng Muhammad di julli am sa ta ku masaan di jullee ñeent yoon lay kabar keroog ba muy julli am sa ta kabar na juróom-ñaar fukk yoon wax keroog naan yaa xam sa ta yaa faahilal xayraat di jëf ko biir tëbli bi yaa xam sa ta yaa saajibal qurbaat badul buwaadul gazwatu sawi xarxaratul fa xëy nu xaawal ushera taatu daa bira ma ona daa yéen ci yàlla Muhammad doog la ilaha illallah wa gaa ñaa ko xeer xadu Xaybar yàlla Muhammadu gaañaa ko xeex ak laa ilaaha illallah la tëje Makka keroog ba muy toj Makka sab'ina qabaa'il la àndal juróom ñaar fukki giir la àndandool ginnaaw ba ko sunu borom ñëw naa waat naa kana daraadisa bara karasra waa mran mu xayyaba borom dimba tey kayaanu moom laa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 yonent yàlla muhammadu nee na sunu borom diyey na ak moom nee na kola na samaawaati sab'a wa maa fiihinna ghayri wal ardina sab'a wa maa fiihinna ghayri nee na asamaan yi ñaar ak suuf yi juróom li ci biir sunu borom ne su tegoon la ilaha illallah ci peese kaay ci genn wet ne moom benn baat ba nun mboolem waa asamaan ak waa suuf li ci nekk nit ak jinne garab ak suuf ak ñëpp yeetanoo benn baatub laa ilaha illa sunu borom ne te man mi ko wax bokkuma ci ni ne kon laa ilaha illa allahu wat leen sahaaba ya dajalo ne yéen ci yàlla muhammadu moo lu gën ci lu nuy wax ak looy wax yéen ci yàlla muhammad di leen afdalu ma qultu ana wa nabiyoona min qabli lu gën ci lu may wax man muhammadu ak yeneen ci sunu borom jikko na yónni ba ma ñëwagul ne baat bu nu bokk di wax ne laa ilaha illa allahu ci gën ni delu laaj ko yent yàlla muhammad mu ne xanaa déggu la sunu borom bax ci alquran ni na alladina yadhkuruna allaha qiyaman sag jamam ye taxaw nan la ilaha illa allah wa qu'udan buñu sonni di ci suuf nan la ilaha illa allah wa ala junubihim bu sonni te dewetu ndey jor nan la ilaha illa allah buñu ñu sonni te dewetu wetu càmmoñ naan la ilaha illa allah ñu ne bu ñu waxee laa ilaha illa ba toog bay noppalu sonn wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi bu ñu noppee ñu sànni seen xalaat yëkkati seen bopp jëlee ko asamaan xool asamaan yi juróom ñaar ak ni mu fi yàggee kenn gisul kenn lu ko téye te daanu nee nañu waaru ci li ma liggéey man seen borom anal xaaliqul qaadirul waahidu maa di bindukat bi maa di kenn ki man yéemu leen ci a bind bëgg naa ku yéemu ci xool asamaan ak suuf xam kenn mënu ko lu may ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا bu ñu xoolee xalaat ba seen xalaatee jeex ñu ne dëgg dëgg sunu raw sunu ba ngay bind li bind loo koy caay caaxaan subhanaka yaa wuute ak noonu luy mbiri bindeef tilim la sag sel raw na la fàkk naa naga nu segal ba neeri ñu ne musal leen Cheikh naa Cheikh Saadu Abi Chérif nee na xanaa déggu la yéen ci yàlla Muhammad defoon. عاصم اللي من علي النبي من قلبي بعد صلاه بالنبي cheikh Sadou Abdou Chérif nee na boo bëggee xam laa ilaha illa allah nee na xanaa yëguloo ni yéen ci yàlla Muhammad mi nga xam ne moonu gën nee na ku doon rëy lu bañ a bañ a wax laa ilaha illa allah yeneen beewara na rëy lu waaye nee na seetal jërë bu ñu naan muslim bu yeneen masaan julli suba sëlmal ak waxtu yi juróom nee na day nekk ca jàkkaam ji si kër wéer ginnaaw gu tëdd ga ca miir ba naan laa ilaha illallah ñu ne ko da ko daan yaram déet mu ni min sawtihi yajharu bi tahlil daan yëkkati baatam ba ca kaw ci laa ilaha illallah ñu ne Cheikh Saadu ab bi cirif kon laa ilaha illallah mbir ma rëy na mu ne yokkaat rijaara bi tahlil tafdili ñu ne moo tax laa ilaha illallah ku koy wax ca kaw moo paabi yool ñu ne ko doon lu cey ngëneel mu ne man laa sama dikkal xafi lam yësal Cheikh Saadu Abdou Chérif ne ku wax laa ilaha illa allahu di ko ji mbaa nga di ko yalu lam yasal fi amni wal imaani haysuma nasal sa gëm du deñ koo man di nekk wayoo man yekkulaa samaho jëhran wasal ne na ku naan laa ilaha illa allahu rëy lu woo yeesu woo di wax ca kaw xam ne sunu boroom mi bindoon sa gémmi ñet sa jëmm moom ngay tudd ne na ku jàpp alal di ko wax ca kaw wasal li hadratil qudsi sagam góor la te du guddi jigéen nee na ko yelu bu dee góor bu koy wax ca kaw ne dee man Cheikh Sadou Abdou Kiri sunu borom biral na ma ne wasal sunu borom dina ko àggaleel mu àggali hadratil qudsi ci pays sunu borom yi sell yi wala rabbi kamal Cheikh naa Cheikh Sadou a Kiri ne man laa sama zikra lam tasal manaa bi woo nee na ku taxoo laa ilaha illa allahu foo ko waxee sunu borom ne ñëw naa toog sa wet di la déglu وقال يا بصر نينا سمعي ديالو إن الأرش المجيد والآفاق المغيبات أكبخ يا لخم يوم كنا بجام نينا بمرا سيطان يا سمعي ديالو باي لا أكبر لا إله إلا الله ما نام يسن برم نينا كبير لامغا نيلا خالق كن بندولين إلا الله لسين برم لمايمن الله سين برم ولا جاي لكم في هذه الملائكة أربعين ليال كن تبولين def leen ndox jox leen malaayika yi ñuy tudd sama sell ga ñeent fukki fan illallahu nu may man boroom ne kenn dugalu leen ci seen bàyyi te bàyyi yëguñu def ko leer ne lu may man seen boroom ne nag kenn boolewu leen ak seen ndey gannaaw ba ma boolee ñaari jaam ne nday ëmb ne nag kenn ëmbalul jooje ndey kenn deful doom ci biir ba lu may man boroom ak kartan wala di yusawirukum fil arhami kayfa yashaa'u ne ma melal leen fa ñeent fukki guddi ya ngeen doon man ni yoog ya ngeen doon def maa leen ko def man seen borom def leen aw lu ñeent fukki guddi def leen suux ñe bind leen melal leen ma neex yasidu fil khalq ma yashaa'u inna allaha ala kulli shay'in qadir ne lu ma neex ma dolli ci bind ga maa yor tu takhliq bind kay jam ma ko yor كل ما تقولون haaliya أحبوا indi lu ngeen may waxal إلا ilaha illa allah wa ma جدوين gënal firndeem ja doy خرنا بدر بواتن خرنا السويق خرخرة القدري موكو خيق على التحقيق خين قام موكو خيق أشيرة موكو خيق بئر معونة موكو خيق بدر لولا موكو خيق بدر الأخيرة موكو خيق بدر الكبرى موكو خيق مكة موكو خيق خيبر موكو خيق في موكو خيق أودن موكو خيق بني قريضة مولين دك lixiyaana moo leen dakk gaañe duñu waddaana moom la leen dakk gaañe moo dajeg ñoom dakk leen hunayni moo leen dakk oot moo leen dakk fu mu dajeg ñoom la ilaha illa allahu bala leen naan ni leen bismillahi rahmani rahim mbaa neen alhamdulillahi mbaa jàngal alquran dala naan la ilaha illa allahu lu sa bàkkaar bari bari soo ko waxee jaati dootul dal ci sa baat saalal ñoŋ na sa deret ñoŋ na boo ko bañee di wax nabil mustafa rangu jiite gaaña ni àndandoo leen ak man bokk dajeeg moom ba mu gëmbaa mu doon ab néewu ji boromam saaba yi ñee di dee seen deega metti na bil mustawa borom ni ko bu mu la metti sa saaba yi dee ngir topp la ngir di ma jaamu laa tahsibanna alladina qutiloo fi sabilillahi bul yaakaar ni gaañi nga xam ni ay yëfara leen rey ci topp sama yoon wi am waatan bul defe ni ay ndee lañu wax yaanu inda rabbihim yursaqu ñu ngi dund ci man seen borom may leen jox ay wërsëg di ko topp banaan ko ña nga ni ngi joo ñu bàyyi ginnaaw sax deewoon ba fekk fi leen ngir ñu fekk xéewal ya xam ni sama waadu baay waadul xaq digub dëgg laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu sunu borom nee na yéen seen la muhammadu saxlam xamal ni annahu ni nek nekk tey dëggoog moom laa amal te moy wéy fu mu neex mom la def fu mu neexul ci yéefar ya mom la def la ilaha illa allah kenn du góor lu man kenn sakul kenn momul lu man ñu ne ci fak defar te yegul ko kay mom te moy man moo tax mu ne xulillahuma maalikal mulk del ni ko am na gaa ñu ñu weddi won nañu kaano nekku nañu ida selom la ilaha illa illallahu yastakbiroona mooroon ma wàccee ca ñoom seen mbugalee ñe ñe jibril la yabal إشراكاً تيوات فنك سيو جنت مخاتل ين خاتل يعني جبل قسن برم رخت خدرتو غاني بوك يق ونجر بني لا إله إلا الله شخنا شخ سادو أبي شريف نينا نقب جامي تقو سران وجهران زما تحت الجهري وفوق السرين بين الزين فدري واختلف الأشياخ في النوعين من سر أو جهر على قولين شخنا شخ محمد جمران يا شخ سادو أبي شريف نينا bu ab jaam tàmbalee naan laa ilaha illa allahu nee suñu borom gëdd malaaka yi ni dem leen ajjana seen simon seeni tabaxukaay mooy leeri baat ba jaam bay wax ne na baat boo daaneel ñu tabaxal la ay kër yu kenn dul xam ñuy gën a yaatu àddina ne na bu jaam ba noppaloo malaayika yee taxaw bu leen ñeneen laajee ni leen li tax ngeen taxaw ñu ni jaam ba doon wax ca leer ya leen doon jëlee la nuy tabaxe waaye bu fa baatee nu jóg bu nekkee laa ilaha illa allah sunu borom gëdd leen leen jóg leen tuddeet na sama baat bu màgg ba ah kon laa ilaha illa allah laa